waaye maa ngi lay sant di la gërëm. Aram mbaa yaa ngi jàmm Param Param Nova nga laal de. waaa Param sa adversaire ngi ne mais combat bi comme régularisé wuñ ko. CNG dañu bañ ngeen taxawandoo. léegi ma lay laaj rek sa diggante ak sa adversaire fan nga toll ci wàccaay bi ak lan nga fas yéene jëflante ak moom le 18 mars incha allah. waaw ginnaaw bañ sante yàlla di julli si yonent bi di sant suñu ñaari waajur di nuyu waa ginnaaw raay nord sud manko jokkoo manko jo ay see digg bi di nuyu waa waa ginnaaw raay gi yëpp groupe ginnaaw raay maa leen di bëggee ñoom soo ko door maa ngi jiital yow nuyoo bi si yow ah booy dantek maa ngi bëggee grand frère yi ne ginnaaw raay yëpp ak booy maa leen sant di leen gërëm di bëggee waa sam-sam bu baax di bëggee waa nootoo guy jamaa saaw ségal nduur nduur di bëgg ñëpp altu nangal maa ngi waa sew waa ngoy Alioune Sylla maa ngi leen siyaar bu taxu taxu di bëgg waa caalaan bu wér a wér a wér léegi waxal sa digganteeg Vieux waaw sama sama digganteeg Vieux Top balaa moo gënoon neex mu ñëw taxaw fii ñu wax waaye waa CNG ñoo ko bëgg Vieux li ma koy wax bëriwul nekk yi moom nasaraan la ngeew la kii dama koy duma dama koy daal incha allah kii ganaa frère la na ñëw jàpp ñëw ma daan ko si jël bu yomb mu dem ñibbi moo gën yi muy def leneen lu mu si bëgg day gën a metti moom billaa wallaay man may njuuma njuuma bi lay waxal borom xalam sa xol. ah billaa wallaay di woo booy sama booy sareet yëpp ma kenn di woo waa boofeen di nuyu sama gars nekk si jël bi di leen siyaar ñoom ñu jaay kii ngeew nasaraan la te jour ba Lamine di nga xam ne loo man maay toog sa plateau incha allah. ngeew la nasaraan la biir dërëm. kenn xeex la hmm. kii kii dafa ñama jaag ak man man may njuuma nga naan kii. su ma ñëwee ba jàkkaarloog moom bu dul gëm naa dee. mbër mu ngi fi muy waaj bu baax a baax. loolu lay bëre. noonu loolu waaye noonu lay demee maa koy tijji incha allah. mu tëj man maa koy tij moom mu tëj. jaajëf. veto mag nga paa nga su la jàppee nga xam ne paa nga maa la mën maa la ëpp doole maa la gën a nekk xale. def naa trois combats trois victoires. bi mooy sama quatrième combat quatrième victoire incha allah. veto dinaa la jàpp dinaa la duma dinaa la daan. incha allah veto yow dama xam bu baax di profitoo nag ah di profitoo di nuyu soxna di profitoo di nuyu soxna Lamine Lamine maa ngi profitoo di nuyu soxna borom Sicap Foire maa ngi koy nuyu bu baax a baax soxna borom Sicap Foire maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la woo si combat bi soxna borom Sicap Foire maa ngi lay nuyu di la woo si combat bu baax a baax Balla Diop day jënd bolok incha allah di bëgg waa Kédougou yi waa Bantoko ñaari xaar yi nekk Bantoko maa leeni woo Balla Diop ñoom Abo Sakho maa ngi leen woo bu wér wér ñoom Touba Lo ñoom Modou Balla Diop benn bolok laalo sas bàyyi bu bàyyi bu maa ngi lay sas benn bolok Mor Kébé Sidi Babacar Kébé yéen benn bolok laa leen sas monsieur le maire Waly Ndiaye benn bolok laa sas ñëwal nga jënd ko ñun ay doomu ginnaaw raay lañ di teewal ginnaaw raay yor drapeau ginnaaw raay incha allah di si woo waa ginnaaw raay bi yëpp vétop magum jëmu nga su la jàppee dama lay duma dama lay daan di woo soxna borom si kàmb jërëjëf kontaan nañ ci yow maa ngi lay ko dara xam nga la laay wax lenn dongul moom laa am ci lu ma metti ci ma koy déploré comme kii aw ma dara dara dara lu ma wax moom lenn dong laa am lu may wax mooy dañoo ñëw ci dañoo ñëw ci buntu signature bi. waaw ñu baañ ci biti muy dugg ñu sotti ma saafara te loolu lépp mënoon jur violence. te ñun dañu war a daw violence parce que ay xale lañu. violence mm-hmm. jëmalul làmb kanam. comprendre nga man ak moom li ñu war a jëflante dañ koy jëflante le 18 mars incha allah rabbi bu bu bu ci arbitre sifflé foofu la mais tey ki ma sotti saafara mënoon naa ko dóor wala ñu xeex fi leneen xew fi te loolu lépp lu waaw loolu lépp mën naa ñàkk comprendre nga loolu lépp mën naa ñàkk mais nag di nga dóoranteeg moom param non param mi si mënul xeex mënul bëre Hmm. waaw 3 combats 3 victoires non 3 combats 3 victoires ak ñi mu bëril 3 <laughs> combats 3 victoires du dara comprendre nga mais ak ak laa wax ñi mu bëril. Hmm. incha allah rabbi maa ngi woo suma mbokk yëpp woo suma xarit yëpp woo waa woo maa ngi woo waa parcelle ñëpp ñëpp maa leen woo ci làmb ji pour ñëw jàppale ma incha allahu rabbi le 18 mars incha allah ma daan param bi maa ngi woo ñëpp ñëpp soo mbokk yi maa leen di woo bu baax a baax a baax a baax bëgg hmm. ñëw. jàppale ma ci làmb jëlal ma ay lan lan drapeau bi Gawsu Kama Gawsu waaw waaw ñu ngi koy ñaanal moo tax mu jàppale ñu rek première édition la waaw ah. dañ koy ñaan rek mu jàppale ñu mu jàppale ñu parce que drapeau bi lañ ko tuddee mais nañ jàppale may ñu sax même bu dara may ñu ay xaalis waaw ay billets sax ñu may ak suñu supporter ndax bis bi riis ñun waaw ñun loolu dong moo ñu intéressé du xaalis dara luñ bëgg isangor mais ñu may ay billets isangor ñu jox suñu supporter ndax toujours lamb ñëw bëri loolu dong moo ñu intéressé jërëjëf incha allah jërëjëf kontaan balmo maa ngi nuyu maa ngi nuyu suma copain. Mounirou waaw Mounirou Tall Assane Mbaye ma àndal incha allah maa ngi nuyu bu baax a baax a baax a baax. ci yow kontaan ci waaye